ma ngay diri tànk ba daal tànk bi tànk bi xool leen tànk bi. côté habillement sénégalais yi ba des fois dañuy roy ci tubaab yi des fois ba mopp mhm. waaw te loolu léeg-léeg baaxu ñun xam nga yooyu nag bon luk la yuy jàll la rek chaque fois moom day am yuy ñëw di romb rek mais nag buñ ci kiiwee baax yooyu benn côté baaxul ci kii bi quoi ci société bi comportement bi bon war nañ ko gën a mën a xoolaat rafetal ko waaw parce que moom loolu moo mën a doxal réew parce que no comme ni ko Youssou waxee rek am na loo xam ne comportement nit dañ lay juger sa comportement waaw moo tax nag war nañ ko mën a gën a xoolaat rafetal ko ko c' est bien beau nag ah dañ bëgg ñëpp rek ndeysaan nu leen di wekk di leen naw lii rek lañ ci jublu ah mais jubluwuñ ci leneen kuy génnati sa kër vraiment nu xool la xoolaat la quoi. voilà léegi nag yeewu leen jeex na mais yaawoo lii ça fait l'occasion damay ñaan rek c'est que ñaan quoi entre nous quoi parce que booy xool fi nekk nii suñuy parents kenn jiituwu leen ci quoi suñu ñeenti parents yi nga xamante chaque jour ñu ngi sonn ci ñun booy xool ñun bu ñu jógee kër ga di xëy si fi nga xamante moom mooy defar ndékki li mère a sol tam aussi faut nous remercier leen quoi gërëm leen parce que dañu yàgg sonn ci ñun même bu ñu xëyee wax yu ni mel mais ñaan yàlla moom mooy xoolal dem ba tëral ci suñuy waajur liggéey tele ba yóbbu suñu yaay màkk yóbbu suñu papa màkk parce que aussi baax na ci quoi billahi gannaaw bi ñu sant yàlla laax gërëm suñu ñeenti waajur yëpp ñu ngi sant caméraman réalisateur ñëpp même yow sax des fois yow yow yow ku jar gërëm nga parce que léeg si la muñe dina la xët nga muñ ko parce que aussi loolooy prouvé ne gëm nga liggéey quoi te liggéey léegi ñun daal ñu ngi sant ñëpp quoi ñu jàpp ci mission beek ñëpp ba mu am benn réussite bi voilà parce que lii dama ne occasion la faaw ma exploité ko quoi nu remercier rek ñi nga xamante ne dañu yàgg sonn ci ñun voilà loolu la ñu doon wax quoi non ngi sant ñëpp quoi ñu sant ñëpp parce que aussi mënul bañ a def émission te duñ leen sant duñ leen gërëm mënul nekk non mënul nekk mënul nekk foo ñu sant leen gërëm leen c'est normal quoi non mais <laughs> ils ne sont vraiment, vraiment pas sérieux et puis euh, gis nañ sànni xeer bi billaahi wax nañ la ko démb gëmoo ñu bëri bu ñu la jàppee <laughs> li ñu lay def mu ngi tegee. en tout cas ñaar ñi moom suuf ni ñuy def dañuy wax rek dañuy wut bonne humeur rek yow dañu lay reetaanloo ba dootoo xamante sax lan ngay wax xam nga ne borom daal yi ñu jël ba pare. muy commenté te nekkati daal am na ñi dañu mën tooñ en ñu ngi leen di remercier. tonton Aada si la muñal fii moom kenn mënatul ñëpp ko Fatim oui. on di dit euh, ah. au revoir wala nee nañ Mado laay njëkk a tàggu ba pare <laughs> comme sa écrivain lam jàll. ah waaw c'est vrai borom naara tey nag bagage yi dama koy ngëpp cat da ci am ndax temps bi dañu xoj donc dama koy denc ba beneen yoon maa ngi gërëm sama papa maa ngi gërëm sama yaay <laughs> maa ngi gërëm sama tante maam Cheikh bi indi mburu bi. ki defar mburu bi machine bi nga ko walee farine bi ñu ci def levure bi ci def maa ngi gërëm ñëpp à vendredi. Fatim non Mado gara xoolal toogal c'est pas sérieux rek doy te retrouve mercredi prochain. voilà on se retrouve mercredi prochain Inch'Allah avec d'autres <laughs> news people et internationales je fais un coucou à ma maman puisque apparemment c'est très tendance sur ce plateau maman je t'aime bisous bisous prends soin de toi. Je t'appelle. Hein. Bonjour. <laughs> nooy kër su man sànni xeer bi laay bañ dama ragal tàppet laa donc <laughs> waaye ree yi kenn mënu ko téye moom toj nañ fi tey c'est pas sérieux moom toj nañ fi moom c'est vraiment bii moom dafa ëpp <laughs> non c'est vraiment très drôle mais euh, man lu may tëjee rek mooy que damay joxe euh, rappeler encore gagnant quiz euh, yi ñu defoon deux deux semaines yi passées <laughs> donc samay quiz dama may cadeau yow laa Thiel ñi ma doon sànni xeer ñëpp noppi nañ fi mu toll donc première semaine bi ñu gagné ñooy ma rappeler ko rek Koumba Diaw Ndaw Euh, Astou Ndongo euh, Mor Samba et Abdoulaye Sow donc ñoom ñoo gagné première semaine bi deuxième semaine bi ñi gañee ñooy Aïssatou Diop Cheikh Mouhamadou Abdoulaye Wade euh, Rokhaya Djiba <laughs> Albert Kalito Badiane donc yéen ñi gagné euh, mun ngeen dem directement Kër Aram Jàppali Jëppal euh, la nekk Jàppale d'accord Kër Aram Jàppale <laughs> donc Jëppal euh, la nekk avant police bi téléphone am mooy 33 824 72 16 dañ boo leen di dem nag da di yóbbaale seen pièce d'identité ak seen adresse mail bi nga xamante ne moom ngeen di jouer pour ñu mën leen identifier donc yéen ñi gagné yëpp seen tour nañ ko def ci groupe yeewu leen bi nga xamante ne mi ngi nekk Facebook pour ngeen xàmmee bu baax seen retour euh, bu fekkente ne tamit information yi leerul envoyé leen ñu mail à tfm yeewu leen arobase gmail point com euh, ci objet bi ngeen def gagnant quiz première semaine wala deuxième semaine pour ñu mën ko identifier donc balaa may tàggoo tamit damay def quiz mais tey ci Fun and Fashion lay ñëw donc Mado tey ci lan la doon wax est-ce que daf doon wax ci affaire pose ongle wala soin du visage foog naa ni boo leen xoolee plateau bi sax nag war ngeen a am réponse bi. <laughs> mais naa ko day maye. Euh, damay maye dama am cadeau yu ma bëggul dara surtout qu'il y a la rediff en plus. voilà exactement donc euh, envoyé leen ma réponse bi à tfm yeewu leen arobas gmail point euh, pour recevoir seen ay cadeaux dès la semaine prochaine euh, may profiter rek di leen tàggu di leen wax passer une très très bonne journée en compagnie de la tfm invité lu ñëpp sa anniversaire bi sama suba la suba la suba la na ñëpp ñëw fii parce que da nga fi nar a tombu <laughs> indi ay affaire te dangay indi ay lekk anniversaire bu riche bu tolloog yow bu am maanaa damay keps ku amul kado doo lekk. <laughs> waaye billaay bijoux. taw xale mënoo siis sax ndax fi mu ne nii koo siisee it du ko jëriñ dara. dëgg la fiin nga. <laughs> dama <laughs> lancé appel ci télé bi sax na ñëpp ñëw ci anniversaire bi suba. moo leen invité voilà nee nañ ma émission bi jeex na gasi na neex na moom moo tax bëggu leen mu jeex mais jeex na <laughs> ñi ngi remercier ñëpp euh, di euh, kontaan ci tànn bi ngeen ñuy tànn ak ànd bi ngeen di ànd ak yéen suba teel bu ne taal leen seen télé bu ngeen yeewoo 6h30 du matin ñu jox leen lu leen di gunge ngeen mën a passé journée bu neex ci seen émission yeewu leen ñu leen di dig daje suba incha allah bu neexee yàlla à 6h30 même heure même chaîne passez une agréable